Mouride yow dëgër nga fit de damaa xam ne yow nga fekk nit ki di nelaw même bu dee këram ngay jaay wala conkin wala loo ti jaay ci lu set ah mais robal ta dem ndax maa ngi nelaw xamoo coono gi fu ma ko daje ba tëdd fii di nelaw nga yéema nga teg ko fan. ñu ngi jéggalu nag. waaw boo gisee loolu. waaw jullit jullit ay mbokkam. waaw dégg la man moom ceddo la sax moom. waaw loolu mën naa nekk. waaye boo gisee ñu yee la dara waralu ko. lu dul sa wérgu yaram sunu wérgu yaram la. waaw dëgg te état moo ñu yónni woon. Ah, kon kerem bi nga jaay ma Macky Sall moo la ko jox pour nga jaay. non Macky jox ma pour may jaay kerem. waaw ah. waaw waaye dañ ñoo yónni woon boo gisee fi mbas mi toll. Ah. l'heure est grave. kaa yaa ngi gën a dem. Hmm. vaccin yi wàccoon na depuis un mois ci ginnaaw. Hmm. ba fi mu ne nii nag jox nañ ñu accès. Hmm. pour ñu dugg ci koñ yi ci kër yi. mën a vacciner nit ñi ah, waaw. dooral fii fii moo ma sonal fan yii. non du ndoxu cité sax. ban la vaccin wu corona bi la. corona coronavirus. bay faal man nga euh, foos laay gas to gaskatu du corona. waaw réew mi dañoo war a mànkoo ci benn mbir. ah ma de damaa yéemu de. bu ñu nee lii ñëpp defandoo. xam nga lu ma salaamaaleykum. maaleykum salaam. ci loo dee booy. lépp jàmm. dama naan booy yow dama laa gëj a gis. maa ngi maa ngi wér. naka waa li. sant yàlla wér. lépp jàmm. maa ngi gis semaine bi. di ko ah, di la ko laaj. du doomu jàmm. waaw moom la moom laa ko doon laaj. naa def baax na maa ngi jàmm. ak jàmm. waaw ñaari. naa saa yi. jàmm. ah waaw waaw. mën na mën na mën na. ma ne man daa am question boo xamante ne si man daal fan yëpp fa dama koy bëgg laaj dama koy fàtte. muy laaj. mooy la moo tax sénégalais yi dëgër bopp bu ëllëwle. ah Sénégal loolu yàgg na fi di. ah Sénégal. yow damaa xam ni président de la république du Sénégal. waaw ah man day mbay yaakaar naa ne lu mu war a wax dañ koy war a def de. ah yow kay loolu moom la ñu tuddee njiit xale yi ñoo naan république bi eh, waaye njiit. ah mooy ki nu jiiteel. waaw léegi. bu nu nee président moo jiitu ku ci war a toog. ah doy na waar de xanaa xanaa xanaa xanaa xanaa wax ñu def. moom kay laa lay wax ni nag moo tax ma ni la bu njiit amee kañu jiital lu mu wax loolu lan war a. moom mbay loolu mooy. loolu xanaa moo sax loolu mooy sart yi xew. waaye man damaa xam ni damaa xam ni vaccin yi mu indi ci réew mi. tarkal la mu ne mi ngi ñëw te bu ñëwee na ngeen vacciné wu bu ngeen vacciné woo daal di wër ku ci nekk dellu ca la nga newoon lan noonu ko tee def. gaskatu fondation du corona xam nga lu ma lay xamal. jëlal sa yii nga jaar man yii nga dem laa wax. xam nga ne feebar jommul kenn. ba yoon eh ma ne gaskatu foos du corona ma ne nga jaar nii xooli loo de man ngi sa wér gu rek laa bëggoon da nga gisee woo ko nag kon maa ngi jël. kii mooy mbaam waay yow yaay mbaam fekk magum jëm tëdd fii lemu di nelaw nga koy yee naan ma ay vaccin li nga xam ne piqûre xaw ma piqûru mbaam la xaw ma piqûru fas. fama pikiru gaynde boo ma ko dooroon fii mooy baraj baraji fu ma jéem eh, ku weddi laajal maire bi ko médecin bi dooroon hôpital régional bu Kaffrine pikiru mbaam lañ ko duut mais bi ko bi ko set bi yee ci fajar gi foo tol dégg powu maire bi mbutututut kenn du ma ndox pikir de kii mooy mbaam waay ah fekk ma may nelew nelew yu neex diggante ba jàpp benn xale di ko pivoté naan ko disiw disiw oh ooy bu fekkoon li ma gént nii dégg la booy boo ma futee ku nekk di ñolog ñolog yi ooy ndaw poobu bu ñaaw sama po bi fan yi daal di dimte ma ni comme ñëpp dañoo tënku toog vaccin man di njiit bu ñu woon naa ye he he cas man naa mu ni ma ñëwal vacciné wu ñaari loxo yëpp moo billahi bu vaccin ñëwee ci réew mi maa njëkk a vacciné waaleykum salaam waaleykum salaam def alaaji da ngaa indi gan tey def barkalla barkalla man barkalla eh mani i vaccin yi dañ ko war def. mani la loolu la war a def de. loolu lan war a def man de ko gun ma naan kaay may ñëw ñu naan ma ko. ah mbay ah, kon alhamdulilah. waaw ndeysaan ah. man de ragalu ma ko. waaw ah, alhamdulilah kon nag dañ naan wokkatu bu dantee gersul. Mhm. n'est-ce pas nii laa ko waxee sama waa ji ci mbedd mi. Ah, waaw ñoo dajante moom sànq. Mhm. mu tegal ma lép loo xamante ni maanaam ci wàllum sante la. ndeysaan ah ba zadd moom loolu ci loxoom lañ ko teg. léegi comme que yéen dañ leen a fekk ngeen waxtaan ci waxtaan boobu noonu. Mhm. dañ naan ça fait léegi yow saay le temps que nga leen di dóoral li nga leen war a dóoral mhm. xaar mu dugg nank sangu su paree nga cappal ma ko ah? waaw moom dee ah, leen tegal ah, man la docteur Dieng ah docteur Dieng yooyu dégg ah yaa wàccee sa diggante laa nekkoon maa ngi bak sama dixième année waaw bi liy génnee nag gouvernement bi moom ñu génnee dëgg la waaw ñu bëggoon a jublu ci liggéey bi comme bi may ñëw rek ni ma leen ko fekkee bu ñëpp meloon ni yéen waaw maanaam jàmm day am ndax yéen seen wér-gu-yaram suñu wér-gu-yaram ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw vaccin yi wàccoon nag depuis un ci ginnaaw da wàcc waaw génn na ñëw na yaakaar ni waaw ñëw na non wàcc na un mois ci ginnaaw ñu ko doon testé nag Bakar Masalla ah. feneen yi moom laa yor nii sax bëgg a jublu ci yow su ma paree quatorze mille cinq cent ah wax ko de ah. Ah. ah yow dëju Fatou Seck bi xanaa defoo fa tey. ñoo fa waroon a ànd tey ñoo fa waroon a ànd de. kii docteur gi. may ma tuuti da ba. ba noonu nga ci tool. diggante yàlla xam ne damay dul ah, ah, bosse eh, eh. ah. woo ma si laabi dama maa ngi ci pësele mas laabele me non non man wax naa la waaw ñun docteur yi lañ ko njëkk a essayé vacciné wu nañ ko man maa ngi raxasu ku baax doo dégg de maa ngi raxasu vacciné goo tant que woo danger bi yow feebar bi mënul na laa bañ a romb xanaa yéen eh, mag ñi ngeen koy defar bàyyil dara jotuma nag ah, yow noppi wu de du leen yéenee ne si mag ñi ngeen koy njëkkee waaw yow man nga billaahi du ma ah yow bàyyi booy wallaax sama digganteeg ah, la si ma kon. waaye ni yaakaar ni man maa bëgg kok kokkulu maa bëgg bolok ni ku daf man xale laa. bii xale bu ndaw laa man bu man xale bu ndaw laa damaa précoce. ah papa yow moom bu ma boo xale naa jaay di mag la. <laughs> non loolu yëpp jaru ko. <laughs> xale laa parce sa wér gu yaram. rek moo la war a ñor. billahi booy man biir naa mi aw ma benn problème. noonu nga ko gisee maa ngi ñëw dem rek. amul yow daal góorgóorlu wal ba ci kanam dégg nga góorgóor ambulant loolu ci koñ rek ba xool koo dajeel. <laughs> ñoo mu ñëw naa ma kay posté lii. man de maa ngi ci laabele me posté le mas laabele me posté le mas. te keneen ku jël leneen nag loolu yow la waaye man man sax lu ma ci dugal lépp ak demb ak kara mën naa fenn ban waxee nee a mool meg daw loolu booy ñëw yow may may may taccalu ban wax kay pifte